wax noppi ku doon waaja wax waaw yow foo jógee. ci ci foyer balaa jóge ban foyer. bu sali bi xanaa xamoo fa. xam naa fa kay. ci tey daal maa demoon xam nga waa 3D bu baa ci ñooñ booy ñii ay nañ de jànk. bu da koo waxat. ci tey xoolal tey dama kontaan sama xol moo glacé. billaahi jànk xam nga waa Njukkal aar tamit. xam naa nañ kay mooy turu mama daaro bi. ñoom ñoom maa fa dem daal damaa romb noonu rek seen leen ma dugg si bi fois amul paas amul daara. toog mm. seetaan ba doya xoolal boo amoon stress sa xoolal jëppay wàcc billaahi lu neex ñi ay nañ de yaa bon lu tax waxoo ma ko ah kon da ngaa bëggoon ñëw yoo xam nga ne waa ak waa a fu ñuy daje fu nekk ma ko jóge ne ma mas ah ma ko woon noonu moom hmm. kon ma oola nag wala dama ànd ak ñoom mhm. dem école ba jóge école ba dem si foyer ba jóge si foyer ba ànd dem géej doo jàkk tey da ngaa mën a dox nekkate loolu yëpp topp nga ne mbaa suwe nga ak ñoom ah jànk nag ku ma fekk man mii may joué la la ma war a wax nag jànk nak yow man damaa mun joué man damaa am jot boobu man nga xam wër rek laay def ak tuuti noppaleeku ah jànk nag yow tamit nak bàyyi yooyu nag xoolal ma gis ko ñoom daaro ak ak ñooñu noonu liy teraanga ak kook noonu tamu nekk famille sénégalaise jàppale ma marlo kooku ay waay tey tey tey damaa ko tàjjak xoolal tey xoolal xoolal bu ñuy joué nii nii laa leen di ah lu ñuy wax rek ma def nii nii nii tellement que damaa kontaan non tey nag tey nag tey nag dal naa si de. yow kay dal nga non tey dal naa si. yow xoolal ñu ma mësul gis daa gis. billaahi. maaleykum salaam mën naa toogee nii yow. <laughs> jërëjëf waay. yéen a ngi am jàmm. Mm. alhamdulilah. taarikal. yow li ngay ah, foofu. fekkee naa lépp lépp man bi waa njukkal aar di waa kitee man fekkee naa man oto bi bañ man maa jëlee oto bi dañ indi ba fii nii ba miin laa ko loué yaa ngi dégg li ma lay ma maa daaw daf ma woo mm. ne ma ne ma ne ma ko fekk man xaw ko fi ñu man maa daaw maa ko jël dama ko fopp téye ko sama loxo bi ni maa ko fopp indi ko fii ne moom xamu woon yoon gi man maa xam yoon gi yaa ngi dégg li ma bi ñu ñëwee waa Kër Saabale ñoom bi ñuy def seen prestation théâtre boobu ñu joué man maa ko fekk nga théâtre ma théâtre ko man maa ko bind xam naa yaa ma xàmme mais man bi ñu koy bind naa maa woon ci ginnaaw noonu taxaw benn waay ju nekk moom moom moo bëggoon joué man ko doo fi joué yaa ma lay wax xam yaa ngi benn xultu noonu ci suuf ginnaaw noonu man maa doon xultu ak ñoom gis nga ñoom foofu noonu centre boobu noonu ñu doon ñu doon kii man fekkee naa centre gi man ñu maa ko tabax waa léegi xaaral boo paree nga jox ma numéro ma daal dégg nga man kooku waaye ñoo demee bokk yaay suñu yaay bokkatuñ ndey ak baay naa comprendre na li may wax nii naa ko baax baax yaa ngi ñoom bi ñu ànd noonu di dem géej noonu man man naa ci kanam yaa ma xàmmewoon man man policier laa woon si diggante mi après ma doon benn élève après ma nekk waaw fekke nga lépp la yow xam naa ne ba gisuma la de yow tax la woon ah lii neex na neex na la yow ñoo fa nekkoon yow tardé nga tey yow yow ñoom sal yëpp xam nañ loolu yow. yow lépp nga fii yëpp. Ah. lépp moom yow. Euh, kii. gis nga ñooñu noonu ah ñooñu nu mu tëddee sax ñoom ah ak ak ñoom loo ak ñoom Daaro ñoom Mama. ñooñu ñooñu ñax yi ñëpp xam naa. xam nga baax baax maa ñoom ñoo bokk benn néeg. waxal waay Guèye Guèye moo may bale sama néeg chaque jour chaque ma kii ba pare mooy bale sama néeg. sama élève la man sama élève la sama kër lay nekk sama néeg moo xeebale saa su ko jëfee ñooy dimanche ñooñu xam naa leen ko baax a baax yoo xam nga yoo xam nga ku ñaan Linos xam nga waaw xam naa ko Linos kooku noonu sama benn boy la moom moom moom moomu noonu moom doon fubal nawetaan après mu bàyyi nawetaan moom ak Zetra ñoo bokkoon terrain di fubal waaye Zetra moo ko yàlla rek mu bàyyi fubal <laughs> xam nga leex loolu yëpp fekk naa fa boobu noonu géej laa moom dañ nekkee géej ñoom di fubal nii naa leen ko baax a baax joueurs yi nii man maa leen daa fubal ko baax a baax après ñoom ñu théâtre man nekk seen professeur de théâtre man éducateur laa ba ma xameewul waaw li muy wax yëpp dëgg la man kontaan naa de yow ma xool kii bu ma seedul woon yow xam naa da nga damay fen yow merci yow yàlla rek mooy jox ma loxo bi yow yàlla mooy li nga wax yëpp dëgg ah, kii li wax yéen ñaar bokk li ngeen wax kii ñoo wax li ñu wax waaw tey kontaan naa de de taxawal yow yow nga ne ñoo bokk li ñu wax yow ñoo bokk li ñu wax mhm. la xanaa nekk ko foofu da ngay gañ fo wala da ngay gañ jël ma loolu laa bëgg a xam yow yow ba yow da ngay bul wala da da gañ fo da ngay gañ man da ngay bul wala looy nekk da ngay passage si wala da ngay def ni ma noonu ma dëgg waaw ñu la la ñuy passage fii yow yow yaa ngi ñëw wax lu xew feenee nga naan dañuy passage xam nga man fekk ma ah. kii dafa ñëw nettali ma li ma wax yëpp moom la fekkoon ci centre bi yow tam ba nga ñëwaat ba nga ñëwaatee ah. même chose nga ma waxaat a dara dara dara dañu si taxaw ni instant bi yéen da ngeen naa da ngeen naa bëgg a jël def ma ginte walima ginte walima jenko sedema jenko sedema dina la jegema. so lo ngeen bëgg def ñaan yi. da ngeen ma bëgg a da ngeen ma bëgg def xel, yeen seen diggante ak yàlla yéen li kii wax man loolu laa wax waaw li kii wax moom nga wax dërëm jógu si dara nga fekkee sax hmm? li neex na de lan la yow leen ndox mu naan ndox loo feres teg ci nag bu doom bu tàng bu tàng daf may gën a daane nox yeetuma de gisatuma sama bopp fu ma ne tey ma maa ngay dem de dama yëg sama bopp ne amu ay rab déedéet eh. amu maa ngay dem tey ma ay kii bu mu jommal eh eh eh sëñ bi sëñ bi eh eh. eh eh yow kii moo ngi dee suñuy loxo de eh eh bi eh sëñ bi eh Kamu ma uti ndox xaw eh, ma uti ndox. uti uti ndox balaa muy dee. yëpp na na sedd na sedd ndox mi na sedd bu mu tàng na sedd. yow gaawal gaawal. sëñ bi eh eh yow bu ñu jooma yow lii lan la eh. musuma fekkee dëgg dëgg. musoo fekkee la. li ma fekkee dëgg sax. waa léegi loolu boo fekkee tey rek loolu daa jàng xam ni jógal kay. xam ma damay nelaw. yow kii yaa gaawal. Why ci not ndox mi fekkoon doon ndox ndox mu sedd wuy yaay kon da yow waroo woon yow be ah waay waay waay kan moo mën a jàppale fi waay sëñ bi eh eh xaaral ah, ma ndox Okay.